nuyu na leen di leen ziar baax a baax mbokk mbokki internet yi ñu ngi seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci den seen émission découverte tabaski 2019 euh, comme ni ñu koy baaxoo di def rek seeti kilifa yi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom baalante àq ñu ngi leen di baal àq di leen baal àq bu baax a baax mbokk yi ñu ngi am mbégte ñëw fii nga xam ne moom mooy Touba ndaamaatu suma juumul ñëw fekk fi suñu xarit suñu wóllare suñu sëriñ Serigne Saliou Mbacké ibnu Cheikh Mouhamad Lamine baara Mbacké Falilou moom mooy nekk sunu gan ci seen émission découverte tabaski 2019 Serigne bi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Sidi maa ngi lay delloo nuyoo yaak mboolem ñi nga àndal ñëpp di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. am nañu mbégte dalal la ci sunu émission bi nga xam ne ñu ngi koy def baaxoo di ko def at mu jot rawatina nag ci tabaski bii nii. message bi nga xam ne moom ngay euh, tàmbalee ci euh, li nga xam ne moom mooy Aïdil euh, Moubarak bi xam ne mooy Aïdil Kabir bi ban message la moom ngay tàmbalee. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam ngi lay sant bu baax di jiital ci cant geeg ziar bi nuyoo bi màggal gi Cheikh Ahmadou Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal ko fi lool te mu ànd ak mboolem njabootu seexul xaddim gi ak jullit yëpp message bi moom du génn lislaam du génn dénkaane lislaam waaye it fàttali dénkaane sëriñ bi bis la boo xam ne ñett moo ko sos kii dafa dégg ndigalul yàlla nangu ko kii dégg ndigalul borom këram nangu ko baay bi doom ji dégg ndigalul baayam nangu ko ñett yooyu daal mooy tabaski loolu nag ñu bari war nañ cee jàngat ndax ñetti yi nga xam ne moo ko sabab yëpp kilifteef la ak nangu kilifteef yàlla moo ko digal na ko reyal sa doom mu wax soxnaam na ko yàlla nee na naa rey suñu doom ji mun na ko waaw mu wax doom ji ne ko yàlla neen naa la rey mun a waaw kon ñetti ndigal yooyu la war nañ ci am jàngat mu baax ci suñu diggante suñu borom waaye jàngat bi it nangu ndigal la nangu ndigal nag dañ koy tàmbalee ci yàlla sunu borom ndax yàlla moo nu bind moom nu digal nu ne nii laa bëgg ngeen doxe ak lii ak lii donc kon mu teg ñu tamit mag ñoo xam ne ak kilifa yoo xam ne saa su nekk ñi ngi ñëw di ñu wax li ñu war a def jiituñu ci nag kon ñun am na njàngat muñ ci war a njàngat waaye boo xoolee jamono tey jëlee nañ ko noo xam ne boo ko dégg nag sa santaane mu mel ne kon loolu ku ci sax rek wala boo boo ci nekkee moom mooy éducation euh, islamique mën na fa leen taal l'islam euh, am doole ci maanaam ñetti ñooñu nga xam ne nangu na ndigal bu baaw suñu borom su ko ñëpp jëfee moom mooy famille dana fondé wu ci islaam waaye tamit umma islamique bi dana gën a maanaam am lu ñu bëgg euh, ci nga xam moom mooy diine ji. absolument absolument noonu la mën a demee ndax yonentu yàlla Ismaïla mi nga xamante ni. bokk na ci li waral tabaski ndax yonent saa sallam dara manqué wul ci moom ci li ko yàlla war a yónni waaye lu ci nekk yàlla dafa am mu koy jaarale kon dafay firndeel nag ni kii yàlla moo ko wax mu wax ñi mu war a wax waaye bi mu waxee ñi mu war a wax ñi war a wax dégg nañ la mu wax kon day dëggal li nga wax na rek fondation islam boobu dafay répercuté wu ci concept boobu mm-hmm. ñun dafa am lu ñu tënk jullit suñ ko waxee rek am na frontière c'est-à-dire am na luñ la may ak luñ la mayut nga ñëw nag nekk ñu amat beneen culture nationale muy mouridisme tijaan xaadir et cetera et cetera yooyu tamit indiwu fi lislaam indiwut waaye fexe nañ ba seen ay message nit ñi gën ci mën a jot monsieur Daas Malick maam Limaamu Laay seen seen ay message mooy nit ñi dégguñu mënuñoo dëgganteek yàlla waaye nañ dégganteeg kii dégganteeg yàlla c'est-à-dire kon nit ñi kenn ku ci nekk da nga war a am kilifteef kilifa googu nag dafa am loo xam ne day wax sa diggante ak moom mooy lépp lu mu la wax rek xamal ne loo war a def la lépp loo xam te ni message bu mu indi ci rek ndax ñoom bi ñëwee bu mu ne leen yàlla nee na nangam moo na ñëw sikki sàkk moo na ñooy weddi waaye loolu def xam nañ ne ki nga ko seqal seq na ko yàlla bu ko yàlla ne nangam rek yàllaa ko wax mm-hmm. ñun tamit suñu kilifa yi ci àdduna noonu la nu mel ak ñoom lépp lu ñu sant tout récemment li sëñ Muntaxa wax barki dem boo ko seetee ci lislaam donc ci fekk nga xaw ko ci alxuraan su ko teree kon day wane ne kon ne day day dellusiwaat ci loolu rek ñoom dañuy jëlee ci yàlla ñëw di ñu wax ñun ñuy exécuter dara waruñu lu dul nag sàmmi naa waa tax naa mooy dégg nañ topp nañ ko. Mhm. loolu rek mooy mooy li ñu ci war. Mhm. contexte bi nga xam ne moom la ñuy doxee jamono ji euh, ci côté tabaski boobu noonu nga xam ne moom moo waral suñu découverte tabaski muy ñi euh, ko sénégalais yi war borom ñi ko ñenn ci yi nga xam ne maanaam ñi ngi ne ay jullit lañ di ko célébrer est-ce que méngóo na ak li nga xam ne moom nga jàngat yow ci jamono ji. Euh, sori na lool benn sax moo ci farata bu ñuy wari di def mooy réewum xar taxat mi sax am na lu jarax nit ñi dañu war a xam ne li tubaab di wax sacrifice donte nag euh, bëgg nañ mu am mel tegal nañ ko ay sart wut am yenn jàngat wut am bu nekk waaye loolu dafa am benn sew sew bu ci am bu nit ñi du seetlu léegi ñu bari tabaski wuñ ngir yàlla dañu tabaski ngir nit tout récemment da dégg ñu ne man de jëndaluguma soxna si xar wala jëndaluguma nànkam xar te fekk ne yow sa bopp tuddoo te soxna soosu ngay tudd ne da ko war a jëndal xar su ko manee moom da ko war a def tabaski du loo xam ne rek kilifa gi rek moo koy def wala nga am soxna wala nga ñàkk am soxna donc dafa nekk loo xam ne lu yàlla lu yàlla santaane la une fois par par an soo ko manee obligatoirement da nga ko war a def mais ñun nag euh, boo xoolee li ñuy def ci suñu bopp moo ëpp li def ci yàlla. bug moo xam ne jar na fanweeri junni yow te yow nangu nga jël na xarum 40 mille wala 30 mille donc kon yooyu yëpp day wane ne ñun suñu yëfi bopp la beneen bii mooy fii ñu toll nii tey bi ñu ko defee ba noppi yàlla dafa santaane ci julli gi nga xam te ni mooy farata ci ñun sax d'accord nopp lu mënul ñàkk ci ak dund waaye santaane ne boo defee jaamu yàlla ba noppi nga dem liggéey fantasiru fil ardi la wax bu ngeen jullee ba noppi tasaaroo leen ci biir suuf si ngeen dem liggéey waaye boo xoolee ñun suñu réew mi économie bi mu ciy perte non seulement ci financé mais après julli gi tamit ñaata temps la nit toog du ñu liggéey te loolu ay milliards la ci réew mi perte ñun tamit ñu ngi ciy perte suñu dund te loolu du lu yàlla santaane kenn nag terewul dem ci sa njaboot dem ci say mbokk mais loo xam ne buy ñëw da nga jël sa fond bépp def ko ci su jàllee nga toogaat ay fan liggéeyuwaatoo donc li la waroon mooy boo ko ci mën a ñàkk de boo ko ci defee da ngay teel a dem liggéeyuwaat mën a dabuwaat fond bi nga xam te ni financé woon nga ci mais boo xoolee daanaka danañ toog 10 jours une semaine nit ñi duñ liggéey tout récemment maa ngi dégg ci rajo bi léegi rek ministre bi sax di wax ne dana am ñoo xam ne ñu amul ay permission dañ leen def ay daan daan yooyu nag du yem rek ci ministre bi dafay aju yàlla tamit am na ay daan yu muy teg yàq baaxul ba pare tamit genn àq gi ak genn càggante gi l'islam l'islam nangu ko alors euh, le comportement d'un wala boog d'un bon talibé Euh, par rapport ak euh, discours euh, xalif général sëñ Mountakha bi wax am na message boo xam ne nit ñi mën nañ koo dégg di ko exploiter ni ko sëriñ bi bëggee wala ni ko diine bëggee mais am na ñoo xam ne nii maanaam seen dégg-dégg moom àggagun fa nangoo gunoo dégg lenn li wala boog buñ ko déggee dañ ci teg seen tànk nekk ci la leen neex ñooñu noonu fan la leen mën a classé tey ak nan la mu war a nekk seen orientation bu ñu am information bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg. waaw du mën a ñàkk ci ab société ndax. yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa di roy ba ci Cheikh Mountakha mi bi ko yàlla yónnee ci bindeef yi yàlla teewoon teeloon na ko comprendre na ko am na ñoo xam ne duñ nangu waaye loolu yow intéressé wu li la intéressé mooy message bi ma la yónni wax leen ko buñ ko exécuté baax na buñ ko deful tamit yow sa jaan wàcc na loolu mooy wax Sëriñ Mountakha waaye bu dee cent personnes quatre-vingt-dix-neuf yi dégg nañ ko te danañ ko def loolu nag mooy li am njëriñ ku toll nii Cheikh mu doxaa su demee ba di kàddam di wax mënoon a wax ci fànn bu ci nekk waaye defu ko li muy wax rek moom li muy dund moom ne ci la bëgg ñun ñu fekk ko ci mooy ragal yàlla jaamu yàlla nangoo liggéey dimbalante di jàppalante di jàmm loolu moom ci lay dox ndax boo xoolee ni muy ni muy doxee nii rek nga xam ne li yàlla santaane ma ngi koy def kéem kàttanam kon nag loolu bu am na ñoo xam duñ ko dégg waaye ñu néew lañ société bi ñu néew lañ donte nag li ñuy ñaan yàlla mooy ñëpp dégg ko ñëpp doxal ko waaye loolu mënul ñàkk waaye moom li ko war mooy def na ko ëllëg kenn du ne ko waxoo woon nangam kenn du ne ko ñi nga ñi la yàlla booleel waxoo leen woon lii wala doxale woon ñu ak ñoom lii yàlla dimbale na ko ba euh, li mu nekk la bëgg ñun ñu fekk ko ci te moom macha allah ñu bokkut ci yoon wi sax seedeel nañ ko loolu na mag ñu ne moom bu feejutoon ci doomi sëñ Basiru niw mel dana ko mel ndax loolu lu mu liggéey la kon dañ koy ñaanal yàlla di ñaan yàlla it ñu dégg ñu bokk ci ñi nga xam te ni danañu ko dégg jëfe ko ndax loolu mooy li suñu njariñ waaye moom li mu war a wax wax na ko waaye loolu du obligatoire ci moom ñëpp exécuté ko wala ñëpp topp ko ndax loolu yónni saa sallam amu ko Euh, maamam Seexul Xadim amu ko waaye nag moom mi ngi ciy bàyyi mi ngi ciy bàyyi waram bu baax. am na solo mbokk yi ba tey seen découverte tabaski may fàttali ñu ngi ñëw fii kër Serigne Saliou Mbacké ibnu Cheikh Mouhamad Lamine baara Falilou euh, ñu ñëw tëkk ci li nga xam ne moom mooy euh, dëkk ba li nga xam ne maanaam ci période tabaski la ñu nekk parce que aji la ñu aji màkk ak ponk yi nga xam ne moom la aj gis soxla waaye tamit léegi léeg ñu gis ci ñoo xam ne maanaam dañuy fàtt ne danoo aji yow est-ce que yaa ngi maanaam euh, lancer message une fois dem nga màkkatal mu karama euh, gis nga nan fay dundee nit ñi noonu lañu war a demee wala dañoo war a xoolaat bu baax a baax si aj gi. ajjuma rek def naa ci benn benn vidéo boo xam ne tasaaroo na ci lu bari si nit ñi léegi ñu ci bari dañoo jaayantuwut ak yàlla ndax yaakaar naa ne yàlla moom pour mu xam ne yaa ngi def nangam wala yaa ngi bërëb sàngam ajiwul ngay def li ñuy wax selfie. di ko vidéo wala di ko yónnee yàlla soxlawul loolu te gis nga màkk dafa nekk maanaam lieu bu sensible boo xam ne dafa am lu la fa war a mm. faral di wax rek vacances yóbbu la tourisme yóbbu la jàmm yàlla moo la fa yóbbu ada ibaada ibaada jooju nag dafa am ay sart yoo xam ne soo ko wàccee rek maanaam yow mun nañ ne sa aj donc bu mag dagg na ci te loolu bokk na ci li ñuy doxalee léegi ci àdduna ñu bari boo gisee rawatina ñi ñuy wax célébrité yi ñoom dañuy baaxoo léegi fu ñu dem rek na maa ngi bërëb sàngam na jàppee Paris nag wala ñu koy jàppee Londres loolu du màkk màkk bërëb boo nekk rek am na loo war a def ndax foo mën a teg sànq ci biir màkk rek mu war Arabie Saoudite de manière générale gëmal na yéen saa salaam teg na fa tànkam gëmal na it ay alxuraan wàcc na fa loolu nag ku ko yàlla jagleel ba nga nekk ci suuf soo xam ne ay alxuraan wàcc na fi. yonent bi tax ñu bind la fii la nekkoon mission fii la ko doon liggéeyee war ngaa tal leneen loolu adduna te yooyu ñu def yëpp adduna la rawatina nag nga dem fu mel ne kaabatu rasul dem fu mel ne barab yonent bi sallallahu di di wanewu di wane ne maa ngi bërëb sàngam yaa ngi filmé wu yaa ngi seen wu yaa ngi envoyé booy wër kaaba gi dafa am ñaan yoo war a def dafa am loo war a wax soo demee ci Yonent sallam dafa am nuyoo yoo war a def war ngaa julli ci moom war ngaa jàng alquran war nga ko jàng wala lu baax loo xam nga di ko wax sa diggante bi nga yëkkat sa téléphone wala nga yëkkat sa lu mel noonu di vidéo sa bopp am na loo bàyyi loolu nag pertement la bu mag te wax dëgg yàlla nit ñi dafa lu ñu war a yëg loo xam ne moom moo leen concerné ñu yëg ko am na loo xam ne nag seen yoon nekku ci waaye nit ñi bari léegi contrôle bi la dañuy fexe ba nit ñi li mu warut a yëg dañ dañ ko ko yëgal waaye li mu war a yëg duñ ko ko yëg dañ ko ko yëgal te loolu amul njariñ nit ñi nañu nañu bàyyi àdduna mi jël privilégié ko chaque jour ñu gis mboon ñu ginnaaw damay faral di wax ne àdduna dafa mën a wor ma ne la koy tooñ amul kenn kum signal contrat ne da nga da nga fi nekk à kon kum fi jëlee waru la nit ñi nag dañ ko sóoraale wu dee bettewul mais sóoraale wuñ ko te bu yàlla dimbalee nag li ma ko waxee rek ab ah, mën ngaa dund ba dee doo dem gis nga ñu dund ba dee demuñu man wóoru la ba xam di nga ñëwaat kon li nga waroon def rek mooy jël sa temps bépp sacrifice ko te aj yàggul aj matul 6 jours li tax ñuy wax aj yàggul ponk yàggul kon boo ci nekkee rek. waxuma la sax self waaye connecté dong war nga ko mën a ma a def juróomi fan yaakaar naa yaakaar naa yàqu dara ci aj waaye nag dañuy ñaan yàlla bu leen yàlla topp ci loolu yàlla mi dara tewut mën na nangu sa c'est-à-dire que koy def pour le plaisir d'une personne peut-être boo xam ne nii appuyé na leen ci maanaam seen voyage bi aj boo fàtte ne ne maanaam kooku la mu la mu la appuyé tamit <laughs> peut-être yàlla taxul loolu muy def ngir jëmmam li la woon waaw loolu loolu loolu xam nga beneen kii lay nekk moo tax mu wax na nit ñi rek nit ñi li ñu war a xam nañ leen ko xamal gis nga nit bu def dara su ko deful te yàlla tax it bu la ko defee yow mu jëm ci yàlla yow utiliser ko te yàlla tax cest à nit ki bu la yóbboo màkk ngir àdduna wala ngir kenn yow soo demee màkk defal li màkk laaj sa def googu ngay li màkk laaj yàlla mën na cee wëlbatiku moom la mu doon def te yàlla taxut ba mu ba jox ko ci tuyaaba parce que loolu euh, mbiru suñu borom la mais nag bu dee yéen ñaar ñëpp da ngeen a wàcc yoon ah mën naa ne lu bari mën na ci am te Sénégal ñu bari dañuy voyager mais demuñu màkk parce que màkk dafa am ay sart Makka dégg naa dem démb am koo xam ne dafa ne man ne xaw ma sax lu ñuy def boo demee Makka loolu du lu du yëf jullit ndax Makka lu dul tabaab ji nga fay def wër Kaaba ga lépp booy ne réew moo mën a nekk da nga fa war a nekk. am na ñoom bu ñu demee Makka dañuy jàpp ne bu ñu tardee julli ci biir jumaa ji rek amuñu aj te loolu ni mu la waree Makka noonu la la waree senegal nga nekk ci ab koñ nag di dund ci koñ bi ba faatu jàkka ji xamuloo ñu jël la dugal ci biir jàkka guddi googu ñu leen fa duggal jàkka ji danaa na bët set gaaw ba nga génn ndax yow bi ngay dund man xaw ma la mosoo fee jullee donc kon boo demee màkk nag bëgg jël sa temps bépp boo gisee nit ñi di ñëw di tooy di feebar dañuy dëkk dañuy nekk ci hôtel bu sori bëgg juróomi waxtu yëpp ñu bëgg ko dem ci Kaaba ga mel ni obligatoire la fekk na lu baax la mais noonu la waree ci jàkka ji nga dëkk ci sa koñ bi parce que tamit euh, makk benn ponk boo xoolee li li li aj di def lépp li ponk l'islam yëpp màkka mooy mujj kon ñeent yi da ko war a pratiquer avant benn bi di ñëw mais ni jàpp nañ ne ko di mun màkk rek sa diine am na ci loo xam du la ci war wala am na ci loo xam te ni doo def ni nga ko war a a defee ñu bari nag léegi dañ ciy concours ñii dañ ciy tiitaru ñii dañ naan dem naa màkk te naa nangam te boo ñëwee du changé te màkk ak weeru koor dañu am luñ nuroo weeru koor examen la boo xam ne ku ci génn rek jur nga laaj kenn sa résultat yow yaay xamal sa bopp ne at na nga wala at ma nga mooy sa ragal yàlla bu yokkuwut xamal ne da nga doon xiif ak mar rek waaye tamit boo jógee màkk tamit sa jaamu yàlla yokkuwul sa diine yokkuwul sa ragale yokkuwul xamal ne da nga voyage woon rek waaye aji woowu mhm. euh, ñu jël siwaat kon fii ci Sénégal euh, ñëw dëkk rawatina ci dëkk bi souvent da lay gis ngay def ay chronique euh, di di di di yee nit ñi waaye di tamit di di mel ne luy xaw a clash comme ni ñu koy waxee ci yenn ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi doxalee peut-être noo xam ne peut-être sëñ bi taxawewul noonu bëggeewu ko noonu loolu noonu yaa ngi ci gis ñoo xam ne maanaam dañuy ñëw di ko naqarlu wala ñu ngi la koy gën a maanaam apprécier waaw jamono yi ñu koy def ñun lañuy ñuy séntu ñu ñëw di ñu ci wax lu ñu neexut waaye loolu mook at mook liggéey bi ñoo ànd ñun jihaat la ñuy def bu ñu gisee loo xam ne ni ñu ko suñu jiine sante ñu war koo wax dañu koy wax nit nag su suñu waxee suñu nettalee say wax wala ñu nettali say jëf mu naqari la dangaa jëfut la nga war a jëf am na ci ñoo xamante ni suñu ko déggee ba ci jëmm ju tedd ji Cheikh Modou Mountakha ñëw na ba ngay suñ Cheikh présenté ma ko wax ko mu ne mu ne waaw góor noonu la fi ñu mën a liggéey sëñ bi daa yaatu loolu nag encouragement la ci ñu mu ne ba sëñ Tuubaa xam ne ñun am na wàll gu ñuy liggéey kon ñeneen ñi nga xamante ni dañ ciy mere loolu dañ ñu yokk waaye du ñu wàññi waaye daf ci am ñu bari ñoo xam ne euh, li ñu war a def defuñu ko loolu du ñu naqari waaye dañuy wëlbatiku nag bëgg a daganal lu yàlla tere wala ñu bëgg a araamal lu yàlla lu yàlla lu yàlla lu yàlla daganal ñooñu nag euh, lañ bëgg a souligner wax leen na leen ñëpp yemuñu parce que am nañ benn titre bu ñu am muy doomi soxna wala muy doomi sëriñ wala na borom xam ñu doxalee noo xam ne dañuy jàpp na nag diine ji noonu la te réew mi dafa am benn image boo xam ne euh, mooy jàngal ñu bari am na loo xam ne bu ñu ko gisee ci internet bi wala ñu gis ko nit wax ko dañ naan ah moom la barki démb rek démb rek wax naa ko benn ilimaan ma ne ko yéen yéenay imposé nit ñi jënd xar yu rëy mënu mu lu tax ma ne ko imam boo ci gis ci télévision Sénégal xar ma muy rey kenn xamul mu toll nit ñi ne dañuy jàpp ne nag xar mi moo dagan yow boo bëggee da ngay joxe bon exemple ba pare xar mi ngay rëy rek mi ngay rey fukki nit ak moo koy jàpp kon ñeneen ñin ñin ñeneen ñi dañu naan ah ilimaan ji kat mooy tere xar mu rëy waaye moom xar mu rëy laa gis mu rey mais joxuñu ko rek nga mais mais dafa am dafa am dafa am loo xam ne day jàngale ba ma ko waxee fa saasa dafa nangu li ma ko wax ma ne ko yéen ñii yéen indi li ñuy fitna parce que xar mii ngeen di tabaski dañuy dañuy jàpp ne xar mii moo dagan loolu nag wax la boo xam ne war nañ cee bàyyi xel mm. ma ne ko nag dafa am loo xam ne boo bu ko nit dee def nun nit di ko wax wala ñuy wax ña muy waxal na leen la koo ko wax bokkut ak dañu war a wax ku mu ci ku mu ci ku mu ci ku mu naqari tamit ñun loolu sóoraale woon sóoraale alors euh, une partie de jeunes de Touba yi nekk ci biir dëkk bi euh, ñu ci bëri ñu ngi boot sa gannaaw ñenn ñi lan la ñuy wut si wala ñenn ñi danoo bëgg maanaam di làqatu sa gannaaw bëgg a yëf yenn parce que dañu jàpp ne yow war ngaa mën a wax à leur place te boo waxee dara du la ci fekk lan moo leen indi ci yow ak ndax ñi ngi euh, maanaam euh, doxalee ñi nga xam ne moom la charte yu dëkk bi soxla. waaw Seydou boo gisee xale yi daanaka mën naa ne sax man maa leen wut si ndax li tax ma wut si leen mooy dama xam ne genn wet ci sama jaamu yàlla ci ñoom la nekk ñu bari ñu yaakaar ne ñoom ñoo ma wuti waaye man ma leen wuti li ma leen wuti dafa am bis ci ni ma ko nettalee suñ lu wootee ba mu ñëwee mu daan na leen man de ñi ma woo ak ñi wusi bokkul ñu ne ko alu ah tax mu ne man ñi nekkul ci yàlla santaane laa soxla man ngi ne ko ah ñooñu looloon de mu ne waaw ñu yéen ñi nekk ci li yàlla santaane yéen mu noppal waaye ñi nekkul ci yàlla santaane laa bëgg a gis ba jële leen li ñu nekk ñu ñëw ci li yàlla santaane man concept boobu ci laa nekk mooy xale yi ñu bari sóoraale wuñ leen ñu bari boole wuñ leen seen seen seen seen seen doxalin da ngay gis nit am lu mel ni am tudd wala am ku faatu ngir mu jot sëriñam rek pour mu ñëwal ko ci problème la donc te loolu du culture boo amul xaalis pour nga gis kilifa ñëw déplace yu ñëw sa kër yombul te bu am xaalis ne ku am xaalis bu amee am tudd fii ba fongalu bi ñu dem tuddal ko bu amee leneen ñu dem fekk yow mi jébbalu ci moom nag boo ñëwee di yor sa téeméer wala sa ñaar téeméer am na kilifa yu bari yoo xam ne mënoo leen a déranger man nag ma ne ah yàlla suturaal na ma ba am na lu ma gëm ci sama gëm-gëm bu dee nit ki sëñ rek moo tax muy muy xeeñtu bu amee soxla te mënut a jot kilifa yooyu man jàpp naa ne su ma jotee xolam dana sedd parce que loolu tamit ci ci loolu lay dund am na ñoo xam ne nag gëm nañ loolu am na ñoo xam ne fu ma dem taxaw dañuy jàpp ne sëñ Muntaxaa fa ñëw parce que ñoom Sëñ Tuubaa la ñuy xent te te yàlla dogal na ci loo ci ci moom la ñu bokk kon yu mel noonu nag dama koy yittewoo beneen bi mooy boo amee ci wàllu jafe-jafe ak am na ñoo xam ne amuñu doole ñi dañuy dal seen kaw ñii ñoom ñooy dal ci kaw yoon waaye comme que réew mi dafa ay culture am ay muy nu muy tëddee boo taxawee yàlla dafa dogal dinañ lu rus ba tax na ñu bari bu bu leen jafe-jafe àdduna gaaree ci wàllu yoon duñu xalaat sax seen ab sëriñ am na ci koo xam ne benn doomu sëñ moom bu si dégg mooy sëriñam dañ koo jàpp mu woo sëñ bi sëñ bi ne ko ah ma ne loolu mënuma ci dara dama la woo Saliou mu woo ma ma ñëw lijjanti ko kooku ne ma damay xaaj ci jébbalu ci yow ndax ginnaaw man bu ma ko soxlaa nee na mënu dara ma ne ko mbir bi dañuy échangeante man am na ma man moom am na lu ma man na sama ci laa dalalee xelam ma ne ko sama am na sama taalib boo xam ne bu amee beneen problème man mënuma ko waaye say sa sëriñ boobu laay woo mu ne ah kon da xam ne ma ko woon noonu waaye man damaa jàppoon na rek ginnaaw man mënumaa lijjanti ci àdduna te loolu lu am solo àdduna ñun moom rek lañ fi mënuñ fi dara sax waaye ci lañ fi tarantee ndax ëllëg sëñ Tuubaa rek fa man dara mhm. ab sëriñ boo ko soxlaa danga ko war a gis boo ko wooyee dalaa war a wuyu boo nekkee ci jàmm da ko dalaa war a gis boo boo ci nekkul tamit dalaa war a gis mhm. kenn ku ne la du ma la defal fii dara bu ëllëgee ma defal la dara fële day wax lu ko neex mhm. fële nañ ko bàyyi ak sëñ bi waaye fii nañ ci def suñ kim kàttan alors mu doon lu am solo mbokk yi ñu seetaan ci 28 pro TV ñu ngi am mbégte euh, ànd ak yéen ba tey seen euh, invité découverte tabaski 2019 mais sëñ bi euh, am na tamit ndax li nga xam ne moom mu nekk ci fougue de jeunesse ñoo xam ne maanaam dañu maanaam gaaw a manifesté wu te manifestation yi ci biir parfois day indi ay tension mm-hmm. ñooñu léeg-léeg dañu lay gis nga xuus ci seen biir. nekk ak ñoom ba parfois sax dañ lay tiital yow mi en tant que chef religieux euh, nekk seen biir dara mën la faa dal ñu ñu jàpp ne responsabilité bi ci ñoom wala doog dañuy jàpp ne yow am nga fitu maanaam nekk ak ñoom. Mm-hmm. loolu est-ce que parfois doo ko éviter tamit wala da ngay jàpp moo war. waaw waaw mooy mooy mooy wax rek ñun suñu lépp dañ ko seedal yàlla rek te loolu daal na ma tout récemment rek am na ànd naa ñoo xam ne euh, ñoom bi ñu leen nekkatee am na lu ñu def ca ca ca bis wees ñu leen di seet ñëw fekk man ñu nekk ak man. te xam nga comme yoon rek daanaka bu dee seet fukk moom bu gisee juróom-benn yu ànd danaan manqué naa ñeent juróom-benn yi lay jëlaloo dañ koy jànkonteel mais loolu yàlla la ñuy jël en mooy ndax am ma ci loo xam ne yàlla du ko seetaan ñun ñoom rek la ñuy fréquenté man du ma ànd ak kenn ku sant Mbàkke aw ma ci kenn xaar ma yàlla nag waaye damaa xam ne ñoom li ma soxla ànd ak ku sant Mbàkke duma ko defal parce que tant yaa ngi ànd ak ñoom rek yow yow toujours rek da ngay da da ngay xam li nga doon. soo ànd ak ñoo xam ne sant ñu mbàkke nag yow dafa am lu lay dolli da ngay fàtte sa bopp parce que tolluwaay bi nga war a bi nga war a egg yow doo ko xam parce que boo fa toll doo mën a jaxasoo ak ñoom beneen biit mooy ñu bari suñ la dee gis saaga sax duñ ko def man gis naa ci koo xamante ni dafa maa séen ci mbedd may ñëw mu yor ab cigarette làq ko ci ginnaawam di mu nuyoo ma benn loxo ki ma àndal ñu taxaw ñu commencé jàmbante ma daal di koy xëcc ñu dem ma daal di ko xam naa bëggu de sànni li mu yor man maa tax mu mu làq donc loolu honneur la ci man loolu rëy na parce que sëñ dégg naa mas naa wax lu mel mu ne tere ñu tere tere tere ñu bàyyi rek doy sant yàlla kon nag nit bu la séenee rek am benn cër bu mu la jox da ngay man vingt huit noo fa demee am na bu ñu ko solee tubay ju gàtt suñ ma gisee dañuy dañuy déplacé donc du ñëpp nag mais yu mel noonu nag dañ ci daf daf ñuy day remplacé ñeneen ñi ndax loolu day neex ci ñun dañ ñuy rus ci yu bari bu ñu gisee yenn soxna yi dañuy wax ak ñoom duñu saaga du ñu def nangam bu ñu def nangam su julli jotee bu mu nee nañu julli bu dee cent personnes quatre-vingts personnes dañuy ñëw julli donte bu ma leen bu ñu ma gisul duñ ko def yooyu yëpp ay ay ay ay ak cant la goo xam ne ñun gis nañ ko ci jaxasoo bi ñu jaxasoo ñoom. alors ñu ñëw ci tere yi tere yi nga xam ne sëñ bi tere na ko dëkk bi mu mel ne am na changement nag. Mhm. Euh, nit ñi dafa mel ne danoo comprendre message bi nga xam ne fa la leen sëriñ bi yóbbu waaye tamit ak ni mu ko defee cet fois-ci dafa wute ak ni mu daan amee lan moo ko waral dëgg-dëgg. mooy mooy mooy li ma wax ci njëlbeen gi rek moom li mu nekk la nu woo xam nga mbir bu la ko nit dee tere sëñ sëñ bi tereem bi dafa am ñetti yëf yu di nekk benn bi moom noonu lay doxee beneen bi moom loolu la war a wax deuxièmement it nit ñi waruñu def violation au domicile parce que ñun Touba lañ nekk Touba nag kenn ku ne xam na ne am loolu te suñ sëñ Touba mooy borom sëñ Muntaxa ko fi nekkal kon ku nekk ci biir territoire bi li mu bëgg da nga ko caa war a fekk soo bëggul def violation de domicile moom waxal na boppam démb sant na yàlla ci nit ñi gis na ne nit ñi bàyyi nañ ko beneen bi non seulement yàlla mais économiquement nit ñi xam nañ ne am na njariñ cheveu naturel ñaata lay jar. quatre cent mille wàcc ba quatre cent francs ci kol ren kër bu ndaw boo gis mën sañ mën a xaar yàlla na yàgg te wér mën na cheveu naturel moom ren jënd ma ko et cetera et cetera don donte yàllaa ko njëkk a tere mais loolu honneur la rek ne sëñ Tuubaa maanaam euh, dafa bokk ci ndawul yàlla yi nga xamante ni da ko yónni ci kaw suuf donte du yonent ci ci ci ci ci culture ci ci mbind mais dara jëm am mënuma koo estimer man kon bu ab sëtam taxawee nag yàlla demal ko mu mu ci dund ay at ba egg si tey mu ne ah li sama wajur Cheikh Abdoulaye tere woon de te yàlla njëkkoon koo tere moom laa yeesal hmm. kon ñun li ñu war rek muy topp ko alors moom dem na ba xam ne lu nit ñi def nañ ko sant na ci yàlla. ok mooy mooy moom it ñu koy sant bu baax wax dëgg yàlla li nga wax noonu euh, ñun ñii sax suñu genre gi dañ ñu doon obligé ñu jëndoo ay cheveux kii ak yooyu. mais alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. Euh, waaye sëñ bi euh, business yi nga doon yëngatu ana Baol transport sëñ bi dafa mel ni man Baol transport ma nekkoon CC bi de mais déggatuma dal ci Baol transport de. ak sa copain Idika anamu dëkk bi léegi am na ay société de transport yu bëri yu dugg. waaw mel na dafa xaw stable wala dafa dox. loolu dañ ci sant yàlla ñu ngi ci courte course waaye gis nga transport moom dafa am rupture ba léegi partout dans ce pays dafa rupture ñun nag kon bu ñu gisee ay gan ñëw rawatina ñëw ñu investir ci dëkk bi dañuy sant yàlla parce que nit ñi mënuñ leen a nit ñi moom ñun mënuñ leen a transporter loolu rupture la bu am ci ci transport Sénégal rawatina nag bu Touba mais bi ma gën a concerné nag gisaguma ko ci ku ci investir mu transport élèves yi. parce que xale yi. waaw ah oui euh, kooku na lool. siid yi nañ trop trop trop trop am na boo xam ne wallaahi alazim dama jóge jumaa ja mhm. am benn oto bu ñu jàpp ma koy lijjanti xaw a tardé ay sept heures fekk ma garage. chaque jour chaque jour dama doon jooy. Mhm. parce que dafa metti te nit ñi sóoraale wuñu leen état bi am na ci part de responsabilité mais tamit euh, kilifa yi gox yi comme ni ñu koy waxee maire yi. président conseil départemental yi am nañ ci responsabilité parce que ñoom am nañ benn autorité ak banque yi même bu ñu amul euh, xaalis bu ñu ko defaree mën nañoo wax ak banque yi par exemple ku mel ne tey mairie Mbacké mairie bu Touba ñooñu war nañ ci mën a doxal seen loxo bu ñu mënta may xale yi transport bi ñu subventionné ko bu dee 100 francs ngay fay ñu fay loolu cinq francs wala 50 francs mais boo gisee xale yi ni ñuy liggéey beneen bi mooy école yi nga xamante ni dafa sori ñëpp xam nañ ne 90 pour cent élèves Mbacké Touba la ñuy jóge léegi nag d'accord naa man du ma dugg ci sujet bu sëñ bi ne nangam nangam mais ñun ñi nga xam ne ay doomu adama rek lañ xam nañ valeur bi jàng jàng am tubaab li may faral di jikko ji moo baaxul mais làkk bi bonul parce que tey kilifa goo fi gis am na ko jàng tubaab ba ci sëñ Mountakha mi am na ku jàng tubaab ku jege wax nañ ne Xaadim Jóob ñu ci wetam kon jàng tubaab du problème bi problème bi koy mooy doxalinu tubaab léegi nag ñun nañu nañu indi suñu culture mu lislaam ak bu Touba nit kuy jàng tubaab li nga xamee kuy jàng tubaab ñu bañ la ko def la sol ga jaxasoo ga ñu école boo xam ne jigéen kese école boo xam ne góor kese ñu sol lañu war a sol doxale dañu war a doxale su boobaa amul problème làkk bi moom mënuñ ko fi génne parce que dangay ngay génn Touba dem Mbàkke jàng yi duggaat Touba boo ñëw sa sa col mooy changé rek mais li nga jàngoon mbàkk moom nga indi Touba moom nga indi loolu nag euh, la ñuy ñaan rek ñun ñu ci ay xalaat di ñaan yàlla motali ko mais am nañ ci yéen trop trop trop trop ci ci transport élèves yi. Mm-hmm. sonn nañ trop. Mm-hmm. alors euh, fi ñuy jeexale moom mooy euh, sëñ bi wax nga sànq imaam yi xarul yi mais yow ñaata xarul ñaata nga tabaske ak noo tabaske ren ji en famille toog nii. non man moom xam naa man moom Sidi toujours maa ngi en moom. waaw man moom moom ci lay dox. Serigne dégg naa xar deux cent et quelques mille nga jënd. non wax dëgg yàlla jënd ma ko sax dañ ma ko jox de waaye <laughs> biñ ma waxee li mu ko jënd métti lu naa ko. waaw wallaay la métti lu naa ko ndax métti na ci moom waaye nag ab taleeb moom bu def ci sëñ bi doona ko déedéet. Hmm. waaye man xam nga man yooyu de sama mbir. fan nga àgg ci xar ma. bañ naa ko ba ba. culture bi nit ñi am man bu doon man ak man nag soble du jar pomme de terre du jar ndax du ma ko togg suur tabaski moom ceebu yàpp lay doon comme lu raar ci nit ñi kon day waroon nga ñëw invité déedéet man du ma def yooyu eh. fi ne soble moom farata la ci tabaski ci Sénégal yi ak ak ak pomme de terre dugal nañ ko ci constitution a tabaski waaw te fekk leneen mën na gën a bokku ci eh. ñi ñi tax ñuy tabaski ñoom xool leen ñoon sable dogguñ pomme de terre dara jëlantu léegi nag ñun dugal nañ ko ci ñun bu mënu cee ñàkk budget la léegi <laughs> yëpp ay caaxaan la rek. jërëjëf sëñ message booy tàggatoo ak booy baaxee mbokki taalibe yi ñuy seetaan. sant yàlla bu baax rek. te ñaan ñu topp ndigalu sëriñ bi te xam ne duñu dem mukk ba taxaw naan sëñ bi fii mu mënu lii moom li mu war a wax na ko li mu war a def def na ko li ñu war nag mooy ñun sàmmi naa waa tax naa mooy dégg topp message bi li muy am am njëriñ lépp li muy bari bari lépp soxla wu ci lu dul ñu def ko loolu soxla tasaaroo geeg yooyu yëpp bu ci jëfee mënul topp rek yitewoo ko kon nañu góorgóorlu bu baax ba lépp loo xamante ni sëriñ bi digal nañu ko fàttali na ko yàlla may ñu kattan bi dafa ko noonu di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér. 28 pro mi nii moom moo la seet si woon ñu tuddee ko 28 bi nga xam ne moom souvent moom mooy sa fief mën nañu wax. moom noo gisee seen ab euh, liggéey. ba ki dem rek maa ngi tooy sama waa ji taal naan ko ah lii de moom tubarkàlla moom te yàgg naa ko gis nag muy tur woo xam ne nag euh, dafa bàttine xam naa ne sax euh, tout récemment yéen dese ngeen a xam ne ci biir. Mm-hmm. waaye ni 28 barkeende ndax 28 bu ñu ko waxee sëñ Fallou ko tudd ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu moo waxoon nag moom la nit ñi indi def ko ci français waaye tey boo xoolee mun nañu tey mooy downtown bu seen bu Touba mooy sensibiliser ci ci misaalum àdduna rek donte yëmuñu ci dara nag kon nag bu ngi tuddee loolu wëlbati ko nag tegaat ci leneen loo xam ne dafa fekkoon ngeen di doxee noonu muy professionnalisme ku leen xam ci loolu leen xam li ñuy wax presse locale ñu bari leen di sous-estimer maanaam duñ leen jàppee ay borom xam jàpp nañ ne borom xam-xam yi ña nga Ndakaaru war ko boo xoolee Dakar information yi pratiquement du ko jóge ci ci ci yi lay nit ñi boo xamut dañ lay sous-estimer dañuy jàpp ne ñoom amuñu xam-xam jàpp ne kuñ soxla wut lañuy sànni fu mel ni feneen mais Touba nag dafa am kii bu mu am spécialiste bu mu am boo xam ne képp ku ñu fi indi rek dafa am noonu moo xam police la moo xam gendarmerie moo xam ku mën a doon suñ la fay indi sax dañ lay yàpp rawatina nag lu mel ni ne journalisme te yàlla na leen di suturaal te yàlla na jëm kanam mosuñ leen a dégg ci loo xam ne xam ñi fi nekk di ay kilifa di ay doomu aadama wekk ngeen leen teg ngeen leen fu ñu leen war a teg te loolu mooy am solo yàlla na suñu borom def barke mu dem ba nekk ay télévision ay site internet ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne bërëbu taskaayu xibaar dana ko soxla rek yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def amiin jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi jërëjëf euh, ñu ñuy seetaan jërëjëf Serigne Saliou Mbacké ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm muy seen émission découverte tabaski 2019 maa ngi àndoon ak euh, Serigne Mbacké Fall euh, Bekkaay Ndiaye Talla Samb ñu ngi am mbégte bu baax a baax ànd ak yéen di leen jaajëfal di leen dig daje ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf.